Euh, salaamaaleykum cheikh internet bu univers info tv chaque fois mbégte lay doon ak ma euh, tey nag ki ñu sees si fii euh, kenn dootu ko présenté à travers son balaa dara di xew rek dama koy bàyyi mu nuyoo bu ngeen ko xoolee rek man je sais que da ngeen koy xam salaamaaleykum waaw salaamaaleykum yéen waa Sénégal maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sant di nuyu waa Géejawaay di nuyu Sénégal wërngal këpp àdduna maa ngi nuyu ñëpp daal képp ku may bëggee di nuyu ñu tëdd ci wàllu hôpital yi di nuyu ñu nekk ci prison yi di nuyu ñu nekk camp pénal jigéen ñu nekk ci kaso yi ñëpp maa ngi leen di nuyu wasalaam. tey bu ñu doon wax ndikku kenn du wax ndikku tout simplement mais ndikku Sénégal parce que instant bii nii ndikku dafa wër gars yi ñëpp a koy bëggee loolu noonu la nga lay def. waaw damay sant yàlla rek bu ma demee bañ naan ndikku international maa sant yàlla di sant sama yaay bi ma sukkandiku. di sant maam Thierno borom daaru mm-hmm. tey Ndickou bëri nañu nekk ci milieu showbiz bi tey jii amuñu opportunité 2STV woo leen pour concours boobu yow yàlla def nga bokk ci te pourtant bi nga jógee yàggul est-ce que yaru Ndickou moo ko may wala li mu nekkoon di rëppatal gars yi moo tax ñu indi ko ci affaire wala dañu am tuuti ragal ci moom ndax neexut a ñeme nag. <laughs> waaye ñun ñi loolu la ñuy wax naan damaa am xàddar peut-être dañ maa ragal kenn ragalu ma man maa liggéey ba egsi rek ñi ma ci bokkal seen compte boo xoolee am na ñoo xam ne maa leen ëpp follow maa leen ëpp follow sama liggéey moo ma may ma egg fii ak ku nekk ak manière bi muy defee ak ku nekk ak ni ma bëggee noonu la daal moo tax ñun ñi ma follow tamit TikTok maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax chaque jour ngeen di dégg lu nekk ndax da ngeen di bëgg rek ko xase bëgg rek bëgg nga. Mhm. waaw. Mhm. ngeen demoon tey Bijou daal di organiser loolu moom it ku ne xam na soo ni muy doxee. mu dundoon benn coow benn à moom ak Abou ci Balo yow bi nga demee ba team Guisu Ngoné ak bi ngeen doon séqante ay joxante dépense est-ce que gis nga ci moom affaire de xadar parce que borom bi ma yaakaar gisuma loolu si kanamu biisu biisu ku baax la ku sympa la foo ko fekk day kaf di foo di rey man kati sax boo waxee danaan man di koy sama xale mais biisu barki yàlla xol bi dara nekk ci kaf ak ñun wàcce boppam ku nekk mu ne ñu lii barki yàlla bu ñuy ñibbi mu yëgati paas may ñu lii wëg lii te bu ko neexoon mu ne ñi duma leen may xoolal tànn béer bi ba ñuy baatale ba ci yàgg mu yëkkati propre xaalisam may ñi ku nekk Mhm. barki yàlla amul problème ni mu toll noonu la xel mi toll xoolal ñun ñi ñu koy giseel confrontation ñun mhm. ñi dañ naan bisu tata bisu da lay invité ba pare humilier la plateau mais xol bi dara ne gis nga nit booy liggéey dara da nga koy jox ak tey man maa ngi nii par exemple bu ma defee nii taxaw sol jëmp taxaw yoolee TikTok bi lan lañ wax kii bandi la dafa vulgaire xoolal bënn mi mais parfois ñi ko doon wax ñooy retourner naan man di jéggalu ci sama jëmm ji fii noonu la nit da nga nga am baatu ginnaaw ak ñu lay critiquer mais day dem ci kaw ca kanam liñ naan bërigo ci mbartal puus mu dem ñàkk puus mu dem joke la kooku nag bu mag la. Mhm. Eh, mais eh, instant bi eh, milieu showbiz li muy doxee nee nañ talent amatul mais talent moo am ak yàqante bi. waaw boo xoolee tamit loolu am na ndax say mënoo. Mhm. nga xëy nga ne exemple maam Ndiaye Savon moo baax suba nga taxaw ne Mame Ndiaye Savon dafa soxor. wala ngeen ne mami Cobra moo baax suba ngeen ne mami Cobra baaxul. Mm-hmm. dafa soxor lii fii dëkk Sénégal la dëkk wax njaay dëkk def njaay yaa ma gën a xam daal mooy loolu. Mm-hmm. mais euh, Ndickou yor na tamit image bu rafet parce que boo xoolee euh, ci concours ba bëri na ñu doon juboole mais Ndickou amu cee kenn problème. waaw parce que xam moo tax. Mm-hmm. man du ma dugg ci yëfu jàmbur. du ma dem day dugg paasu nit. ne naa nit lu muy def man nit bu ma yónnee sax vidéo ne ma diw wax na ci yow. dama naan la bul ma ko yónnee ndax yow mi yaay seytaane bi mhm. yow ma gis nit wax ci man ci réseaux sociaux nga jël vidéo bi envoyé ma ko pour ma gis ko yow au moins mën nga ma tontul ndax yow xam nga man maay kan mhm. xam nga yow man maay kan bu baax mais waroo jël tey exemple ne ma ndikku kaay xool li maam Ndiaye wax ci yow te yow nga xam ma xam man maay kii xam man je suis kii mhm. kii je suis yow yaa ma waroon tontul à ma place mais pas nga envoyé ma vidéo bi bëgg nga gis ko man kooku laay jàpp ne mooy seytaane Euh, ba tamit concours bi nekkul woon quelque chose boo xam ne facile na ñu gis nag ndikku ñëw ah daal di njuy gaa yëpp ndax boo xoolee hygiène bi ci ci ci ndikku la gën la gën a feeñee euh, par rapport ak fi ñu jël di ko qualifier ndikku waaw parce que nit ki booy togg fi ngay togg dafa war a set parce que lekk danga koy jox nit mhm. te microbe dafa fragile mhm. microbe mun na di naaw nii sax mhm. ci air bi te doo ko gis microbe mun na jóge fu nekk moo tax man ba ma ñëwee takk xool premièrement fi ma teg samay bagage ak yëpp ma gis gisuma sachet poubelle gisuma poubelle mbalit gisuma peel jënd gisuma dara dama woo sam benn livreur boo xam ni culture la tudd Colobane la nekk prêt-à-porter lay jaay en même temps day def livraison ma woo ne ko culture mu ne ma ma ne ko jëndal ma sachet poubelle jëndal ma pelle jëndal ma bale ma nettoyé sama plan travail ba mu commencé désinfecté samay samay matériel de cuisine soo ko commencé taal jënd sama litre eau de javel mhm. mhm. nettoyé désinfecté foofu yëpp soo ko commencé mhm. ba pare ndikk tout le temps dañuy wax ni que xol bi dafa rafet ndax chaque jour rek bi expliqué gis nga ko muy jooy gis nga ko mu nekk ci euh, anam boo xam ne kenn mënul comprendre quand même waaw parce que loolu xam lan moo tax côté boobu bu may wax parcours bi sama yaay kese la parce que dañ naan mbaam wëq na doom bi waaye bañu parfois du may ñëw fii sama kër yaay laa defee émission parce que xam lan moo tax fii damay ñëw toog sax du ma dama fiy ñëw de mais ci salle bi laay toog ak xale ma mën a toog jàkkaarloog sama yaay parce que sama bët bu dawee ma fixé sama yaay da sama bët bu dawee ma ñëw fixé sama yaay mhm. sama xel day daw ci bam daan sonn nax man ak doon ma tere lu bëri may bañ ma daan ma daan xalaat loolu. Mhm, mhm. tey jii lan moo tax affection boobu boo ko xoolee sa yaram di daw wala soit nga koy bañ di mhm. xool parce que wax nga ko sànq sa biir wax nee na nee nga euh, waajur wekk na doomam mais bañu ko xañ na lii la la bëggaloon léegi lan moo tax yow soo ko gisee nii rek di am euh, pensée boobu. waaw parce que pensée boobu dama daan xalaat. bu ñëw. Mm-hmm. di ma conseil ma koy daw wala mu ne ma kaay dama la soxla ma ne ko yaay maa ngi ñëw fii rek laay dem. Mm-hmm. parce que moment boobu li ma doon bëggoon di ma conseiller bëgguma di ko dégg loolu xam loolu day am ci yëpp ci bépp doom. sa yaay ne la kaay dama la soxla. Mm-hmm. toog ci néeg bi di la xaar nga ne ko maa ngi fii laay dem parce que boobu xam nga rek âge puberté boobu bëgguma li may conseiller man bëgguma di ko nangoo woon dégg. bu nee ma kaay dama la soxla wala maa ngi ñëw wala foo nekk ñëw ma ne ko yaay maa ngi ñëw mu gëj maa gis ma dem du ma ñëw mhm. mu ne ma maa ngi lay woo ma ne ko yaay maa parce que boobu la ma doon conseillé ci pour kaay baax bëgguma ko woon dégg mhm. mais léegi dama dem ba moment bi ma toog ma xam njariñ bi mhm. ma xam njariñ bi xam ni lii wëg lii la ma doon dee léegi bu ma doon damay toog ba ci yàgg jàkkaarloo moom nii ci ëtt kër gi xalaat ne ndaysaan pourtant bëggalu ma woon lu bon de lii dama ma loon pour ma devenir quelqu'un léegi xolal lii la moo mm-hmm. ngi nii léegi dama koy xool kontaan buy wax ak man dama koy déglu appel bi day sonné ring benn yoon ma ne allo yaay. mais bu njëkkoon noo sonné ba dagg ma bàyyi ko ci biir wala ma ne gisuma ko wala sama numéro yaay dama koy supprimer bañ muy gis sama état te léegi day gis lépp ci li may nekk muy xam ci lu may nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. lan moo lan moo tax nga xaar sa moment sii nii. pour pour pour accorder ko loolu di wuyu ay appel am di ko jël wala dafa amoon fenn moment boo xam dafa am loo dund am moom wala. non non parce que dund woon ak moom dara léegoo li ma la wax yar na ma fi ñu war a yaree jur ma fi ñuy juree doomu gor yëpp. mais xamal rek ay àndandoo ak ay xarit. Mm-hmm. àndandoo ak xarit. Mm-hmm. waaw topp bànneexu àdduna rek yaa ma gën a xam daal. Mm-hmm. est-ce que ñooñu tey jii yaa ngi jot seen i wala soit ñu ngi lay jéem a invité waat wala soit di bëgg nekkaat ak yow ñooñu noonu nga tey ñooñu sama xarit yooyu tey ma doon àndal boo xoolee ñëpp sama buntu estati sama buntu estati whatsapp la ñuy faral ko laaj lu ma dugal ñooy njëkk a vie jamais ñu remercier ma wala jamais ñu ne encouragé ma ci dara mhm. tey ñooñu lañuy toog ma xam ne ñii rek ma doon àndal tey war nañ maa gën a yokk jom ndox ñoo ngi xaar sama defet ak sama fayit mhm. ñu toog yor socc di reetaan parce borom daaru dañ may gis ni may dugal dara ñu toog xam naa ni ñoo ngi toog naan yàlla nu échoué man ñooñu rek ñoo tax may xare ba daal di rey sama bopp. Mhm. voilà. est-ce que am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne jël nañ tamit ñëw am occasion ànd ak yow jël yoon bi nga jël. waaw am na ñoo xam ne ñoo ngi jël yoon boobu fu may dem dañ naan ma ndi ko fooy dem wax ñu ñooñu bu ma amee sax benn trente mille bu ndaw ma jël ko cofal leen xam ne maa ñoom ñoo ànd pour bugg man ñu topp sama ginnaaw. Mhm. Mhm. kon tey euh, bëri nga ci ñoo xam ne instant bi ñu ngi lay encouragé mais des fois tamit est-ce que sa xarit ñenn ñi duñ ci am problème ak yow maanaam commencé di la wax ay baat wala ñu lay ñu lay menacé wala soit ñu lay teg ay pression yenn xarit yi. waaw parfois da ngay gis nit. Mm-hmm. ñu am parce que parfois ba tey samay xarit lañ mënu ma génn xëy xëy sànni leen ndax samay nit fu démb leen. programme day am wala dara am na yoo xam ne mënuma ma ñàkk bañ a tànk foofu na may damay dem. Mm-hmm. mais damay dem tase ak ñoom parfois ñu ne ma yow loo fiy def. du yaa ne woon bàyyi nga lii wëg lii mais il faut kooku bu nekkee ci naqar mhm. wala mu nekk ci bànneex il faut ma solu jóg demal leen même ak lu ma mëntee ne bàyyi naa lii wëg lii mhm. kooku moom ci naqar wala bànneex damay dem parce que sama nitu démb la mais mhm. ma dem nga gis nit ñëw yow de loo fi def du yaa woon bàyyi ne la ma ne ko li ma fi ñëw man la concerne parce que sama digganteeg diw mii laa sàmm instant bi ndikku ci ban euh, commerce la nekk di yëngu wala yan projet la nekk di waaw maa ngi ci ay projet ndax tamit liñ naan bu lëkk lekkee olom na ko gërëm ci ay maam Njaay may na ma xaalis ma jënd fi ay sac sako si daa am ku ma ko placé mhm. mu ma koy jaay mhm. mais sama projet bi ma gën a gën a bëgg rêvé loo xam ne man maa ko bëggal sama bopp mhm. maa ci maa ngi ciy dox daa am ay kayit yu may def démarche ak ay papier yu ma déposé ngeen ñaanal ma papier yi génn ak jàmm sama relève bi nga xam ne man moom laa gën a bëgg sama àdduna ubbi bitig loolu mhm. maa ngi ci daa am ay kayit yu may def damas mhm. Mhm. mais gars yi doon wax naan Mame Ndiaye Savon da laa jox xaalis nga lekk ko changé look bi dem defaat ma gën a xam waaw loolu bañ ko waxee dañoo ne woon dama jënd kamoon vingt jënd seenu or Sénégal preuve la xam bagage yi ba mu ñëwee ma yónnee Turquie xam nga bu dee Turquie da nga par conteneur bagage yi day yàgg pour bëggoon lu neex ñun ni bañ ñu ne lekk na xaalis par GP laa fay kilo mu ñëw ba mu ñëwee ma génne ko ñëpp gis xam nga lu ñu fàngu kenn du ko jeex daaj koli bi ñu gis ko ñëpp gis ko ma am ko ma ko placé parce que man ay jaay sa ko sax bugguma yooyu li ma rêvé laa la wax jaay laay ubbi boutique Sénégal ñëpp gis ko mm-hmm. déggoo mee la maa ngi ci démasqué yi li ma gën a reer parce que xam nañ man dama bëgg sol mu bëgg sol mm-hmm. mm-hmm. sama live bitigu prêt à porter laa bëgg unisex ci loolu laa nekk dama bëgg sol bi sama biir xol ba nit bu soloo sax mm-hmm. dama naan ko li nga sol rafet na mais maa ngi ci incha allah euh, ñu gisoon tamit benn rumeur bu ndaw entre Ndickou aada fas Ada Fass émission bi amoon na problème ak euh, yoon mais yàlla defaat na daal di génnaat na ba ñëwaat na ci famem fan yi ñu ngi doon gis benn video bu doon circuler sax que delluwaat na ci dëkkam réellement fa nga xam ne foofu la jóge woon non Ada Fass dama koy ñaanal gudd fan wér gu yaram moo xam ne waa fas dañ kaa bëgg te bu jógee waa Ndakaaru dañuy jóg ñëpp a ko bëgg xale yi xale yi Dakar ñëpp ko bëgg doomu Ndakaaru la na gën a yokk entraînement yi xam ne gis nga nit jeunesse bi bu ñu àndeek ak jaww boo jógee ñu jóg même malheureusement défaut sax loo mun ti def ñu ne yow la ñuy topp yow lañ jox bopp dafa war a gën a yokk entraînement yi man sama nit la duma ko wax duma ko nëbb même luñ ti sekk tamit sama nit la avant dara xew barki yàlla doo doon yëkkati xaalis bëri dima may ndax dama ko challenge challenge boo xam ne maa ko njëkk a def xale yu jigéen ñi ku topp à travers Salange lañ xamante muy ko baax barki yàlla lu mu yor nga gën ko kaa bugg mu yëkkati may la ko même buñ sekkul dara tey mun nga ne ko aada lii nga takk daa rafet barki borom daaru mu ne la jëlal ma may la mhm. mu ne la jëlal ma may la or génn mais am na na kiiwaat na defaraat toogaayam mhm. parce que tamit askan bee ko dugg mhm. ba pare ñëpp dañoo jël foot bi rejeté ko jabaram que ni bi mu ko duggee ci moom la am ay problème bi mu duggee ci moom la ko police arrêté bi mu duggee ci la dugg jeel ndogal fu nekk lay ñëwee. Mhm. ndogal fu nekk lay ñëwee man jala avant génn tag Ada Fass xamuñu xamul woon Ada duñu woon wax mais ay nit ñoo ñu juboo la ñuy wax mais xamalu ma ko dara tamit du ko seedeel bon même lu munti nekk du ma ko seedeel lu bon mais moom tamit nu gën a góorlu yàlla baax na man ñoo dégg ñaan divorcé na divorcé wu loolu xaw ma ko ndax man maa ngi toog sama rut mais yàlla baax na même bu dee divorce bi am na yàlla mun na ko may keneen ku gënaat tamit aada mu xool leneen aada xoolaat parce que jalaa tamit jigéen la ñool na ci kaw car macha allah sama mbokk bambara la tamit xam nga ñun bambara yi dañoo jekk voilà <laughs> mais yee yee ñaar dañ doon wax ni que euh, ndikku alalu aada faas la maanaam dañ doon live waaw doon nañ génn mais yàlla moo tuddoon suñu génn jeex na bañ génnee maa moom ñu bàyyante doon na génn ak keneen avant jala est-ce que dekku jalousie boobu moo topp ndiku ndax aar dafa boo nag ndiku non non boobu topp ma yàlla man Ada ay nitam damay waxtaanu ak ñoom damay dem koñam ba tey c'est que ñëpp jaamu di nuyu ñoom Petit Ndoy ñoom Sidaat waa Grand Dakar ay nitam damay déggante ak ñoom téléphone. Mhm. di bëggee tamit mafia ultra bi mafia bu dafa Ada Fass bi ñooñu bu Ada Fass jógee dañuy jóg. Mhm. waaw ñooñu lu ñu munti am aadaa leen ko gën a aadoon Dakar l'enfant série de vingt et un bi <laughs> mais ndikku nekk nit koo xam ni euh, tey lu mu salange rek wala lu mu def gars yi daal koy defaat mais loolu lan la est-ce que du duñu duñu compatu ci bayra bi gars yi neen daa xam bayra bi de ndeysaan benn bayra amul benn amul banlieue boo fi dëkkee da ngay mun innover da mun wax lii nga dëkk géejawaay dëkk jàmm gën yooyu mun wax waaw xam nga ñun doom banlieue mooy loolu mhm. ragaluñ dara dañuy wax rek mhm. comme li su lay gaynde naan dañuy mbaraju rek di mbaraju di wax rek mhm. waaw dañoo mun wax waaw est-ce que tey ndikk pare na des fois tamit mu fekk benn xale bu jigéen bu nekk ci milieu mu xëcc ko conseiller ko génne ko ci li mu nekk pourquoi pas man parfois dañuy gis booy woo ma Ndickou yee eh, yaay sama yaay yow rek laay topp melo bul ma topp jéem a topp sa bopp ko quoi. parfois damay gis koo xam ne dama dem naa fi Gambie gis benn xale bu jigéen boo xam ne xam naa ko baax fii senegal mais xale bu jigéen bi xam naa ko ba ma ko gisee Gambie taabaan laa ko gisee ma looy dox fii mu ngi tux karak karak karak ba déprimé ma ne ko yow doo reculer Dakar seen waa kër gis laa ak yooyu mu ne ma dinaa ñibbiseeg yooyu dox ay xeer ba kilbite te fii doomu Géejawaay la ma wax ak moom jël numéro ma foog daf may sànni mais chaque jour maa ngi wax ak moom. Mhm. waaw pour motiver mu ñëw ñibbisi xam nga mooy loolu. Mhm. est-ce que ba léegi am nga ci retour yéen ngi déggante que jël la décision tey ñoo ngi déggante mhm. ma ne ko di ñibbisi mu ne ma dinaa ñibbisi barke yàlla may wax ak moom mu naan ma maa ngi lay seetaan di la suivre mhm. tiktok depuis Sénégal mooy wax ak moom barke yàlla di wax ak moom nii kóolóolu taabaan la nekk mu ko gisee dama tiit man xàmmee moo ko sax moo ma xàmmee te pourtant mineur la man lu ma mënti wax damay wax parfois am ñu may woo sax naan ma sama doom bu góor lii wëg lii laa wëg lii dooy toog moom di waxtaan ak moom. Mhm. barki yàlla mais yàlla baax na tamit. tey concours bi tey fan la la yóbbu ndax gars yi ne nañ millions yi bëri na ci côté Ndikku succès baa ngi ñëw oto beeg xam nga ak dugg massage ak yooyu tey concours bi. waaw concours bi maa ngi sant ndax tey million nit da koy dégg rek foog ni million xaalis bu bëri la xaalis la du xaalis. Mhm. tey amoon na ba may sonn di préparer concours bi. Masamba jëndaluma benn jimbo benn poobar bu juróom wala benn laaj kenn waxuma ndik te xam nga si ñaata compte sama compte whatsapp ñaata kii laa hmm. maa ngi plus de 913 913 contact numéro ba mu ko defee stat kenn waxuma jëlal jëlal jëlal bic kenn waxuma photo sa carte d'identité maa la jàppale nii moo tax Sénégal dafa garaaw ma débrouiller débrouiller ñaari nit kese yëkkati may ma Pape Seba Massé Zeng moo yëkkati Seba ne ma taqal sam benn góor bu ñu naan addu gay séeri asu jabaate moom tamit jàppale ma yëkkati xaalis may ma à part ñaa ñooñu kenn jàppalewu ma mhm. ma dem dénk sama bopp yàlla def li may def ba concours bi jàll mhm. mais ba concours bi jàllee ba tànn biir bañ leen di ko gagné na troisième position am na un million mhm. ba ma tëddee nelaw ba yeewu sama téléphone bi iPhone bi ring ting ring ting ring ting ring ting ku nekk naan ana millions yi ana millions yi ana millions yi ana millions yi mhm. mais xoolal bi may raam di esati mhm. xoolaa yées yeeg posteer yi kenn newul di ko am lii maa la jàppale wala maa la sponsorisé mhm. léegi loolu quest que ça te fait bi ngay dem kenn jàppale loolu nga am million ñu lay woo est que tamit ndikk du leen mettre place parce que sax dëgg la mooy tax ndeysaan <laughs> moom lu ko neex lay def xamal lan laa leen def esati audio kenn jëndalu ma poobar kenn jëndalu ma kenn jëndalu ma xorom bi yéen laay waxal bu ma kenn woo bu ma kenn woo naan ma lii naan xam nañ ma du ma saaga ci réew mais li ma leen wax dégg nañ ko. Mhm. voilà. kon da nga leen topp ba mu sës daal. dama leen a topp ba sës. Mhm. ba pare ndikku dafa nekk nitu nit ñi sànq bi ñuy dugg sa koñ nuyoo bi jàmmante gi saafonte bi te des dañ daan wax naan nitu milieu day réservé wu du bëgg a dugg ci kenn. non man du ma réserve man damay romb fu ma fu ma seen samay bëñ day seen njëkk a seen xale yi ci mbedd yeeg. maag xale yi ci koñ bi dama oyofal sam bopp. Mhm. parfois noonu laay def asegna bi may dëkk moo rombee jël fan fanweer toog daaj fi ñaan ma ndiku yee am ko naan ñaan ma star nga nag dangaa war a bàyyi wëtiir yi mais leen ci digg ñànka tang laa dëkk chaque jour ci kaw wëtiir yi laay yéeg fay fanweer dem marché bés fayaat fanweer ne waat ñoo ci kaw ali di ko coqi coqi duggaat sama biir kër. loolu da def plaisir wala da laa neex yow. defuma plaisir ma dëkk ci banlieue bi. Mm. aseeg naa wutiiru fanweer yi laay yëg dem marché bés ndi ko samay caraxu duus yi 300 du laa sol ànd ak yéen. Mm. lan mooy succès suba succès day jeex de. du ma fi ñedd ñu ñodd loo xam ne mooy loolu suba succès day wàcc man mhm. dama oyofan sam boobu ni ma mel laa mel naturel mhm. samay nitu démb ba tey mhm. voilà succès bi tax na ñu bari dee fois sax dañuy perte li nga xam ne mooy seen personnalité comme récemment li fi xew rek ci diggante Amethou euh, ñu dem ba benn moment donné moom tamit euh, ki nga xam ne moo di jabaru magam génn di ko waaw di ko wax yoo xam ne tey jii euh, nekk na loo xam ne ay baat loo xam ne nit ñi rafetlu ko ndax mi ngi koy joxoñ baaraamu tuuma waaw kooku dama ciy wax mam maa sama mag la mhm. mam waa la référence la bu ñu naan gaynde géejawaay la lion ñaari nit lañ fi wax maam waalo ak ndey géey maam waalo gaynde la sax ñun bañ nekkee xale dañ daan dégg maam waalo maam waalo dañ ko daan tooñ sax bu ñuy jënd ji nii xeef am ay programme bu ñu demee ci jaaykatu xeef yi dañ naan jaay ñu xeefu maam waalo na xefu 3D yi ngand yi ba jaaykat yi dañ may tooñ naan ma yow yëpp nga maam waalo dañ naan jaay ñu xeefu maam waalo gaynde la champion la bañkat la mhm. parce que xam lan moo tax jigéenu bañkat la jigéen boo ko xam ne boo xoolee lépp moo koy fay tingal boppam xoolul xaaru góor si dara xaar bi barki yàlla géejawaay cër bu rëy lañ ko fi wax boo nee gaynde géejawaay ñu ne la maam waalo barki yàlla nga ne gaynde géejawaay ñu ne la maam waalo ak Ndeye Gueye ñaan ñaar ñooñu sama référence lañ mhm. Ndeye Gueye maam waalo sama référence ay gaynde lañ ñoom ñooy gaynde géejawaay fii géejawaay ba mu daj mhm. jigéen boo wax dañ ñaan maam waalo wala Ndeye Mame Wally dafa gëm boppam lu ma am moo ko fightingal boppam mm-hmm. mais fit nag foo gis li nga am ay noon am ay baatu ginnaaw mais champion la mm-hmm. barki yàlla kooku tey boo ko doonoon am stade këram day togg cin ay jàmbur yàlla kese lay jox ñuy lekk parce mhm. que borom daaru mhm. mais instant bi est-ce que woon yoon la muy génn di def genre révélation yi ba ku nekk di ko ci xas ba des fois sax nit ñi di ko génneel ay waxam naan day volé day suus affaire yooyu. waaw fii boo fi wax dëgg dañ naan da ngay volé da ngay suus man mii maa ngi nii heure may def émission dama bëgg verre ba mel ni bu si tam mu taqee ay verre ñu ne dafa suus dafa volé Sénégal yéen ñi ko bañ. lu nekk la ñuy wax ah. ba suus xëy mairie sax dañuy wax ñu ne léegi da ngay suus bàyyi ñu fi kenn. waaw mhm. est-ce que kon yoon la kon muy génn def révélation yi. parce que booba toog na ak njabootam ba heure bi waroon na xaar quand même. ñoo peut-être tamit ba muy wax. Mhm. xoolam moo fees xam parfois nit mën na toog jàpp benn ranking jàpp benn rank téye ko ci xam mu am opportunité ko. mu génne ko. Mhm. loolu moom la concerné lu tax ma génne ko mais man jàmbaaram bi ma ko xamee dama ba ñëpp nangul ko. fu mu dem programme bu am ci géejawaay ñu tuddee ko ne maam waalo gaynde géejawaay loolu ñëpp a ko nangul man tey ndiku ñu ne gaynde géejawaay non non dama naan maam waalo nit da nga koy nangul ak ndey mhm. boo paree boo ma tegee ma soog nangu mhm. waaw ba pare eh, ñi pivété waat ci côté ndey géej comme ñoom ñaar ñooy gaynde géejawaay moom tamit rumeur yi bari na ci côté ak digganteeg borom këram ñii naan li tax borom këram eh, tout le temps du du du am ndam c'est grâce à lui parce que fee mu doon def la rejeté ci kaw jëkkëram. c'est que ñun xam lan moo ñu sonal. Mhm. ñun bëggeelu banlieue ñun tey xooluñu nit ki am dara tey mën naa jekk ba mel ni tàngal. Mhm. ma gis kee yor sareetam. Mhm. mu bëgg ma mais bëgg du xaalis. amul plaisir. mu may sentir moo koy sentirante fuñ ma jàpp ma koy yuuxu di ma téye point du ma ko wax kenn du ma téye gaam. ma bëgg ko loolu. mais ñun ñi après xam la lañuy wax xoolal ndiku. xamul boppam xoolal nu mu rafetee xoolal nu mu jekkee parce mhm. que yaa ngi may bu baax xamul valeur am mhm. mais kii fa fa may jàpp mooy yuux est ce que ko wax noonu mhm, sama point faible est e que xamu ko mais nit ñi ñoom lan la ñuy gis bët xoolal di ko nu mu jekkee du xool ku am xaalis ku ko mun a yor gaiseman bee mu topp wala léegi mais ndéggee dafa bëgg papa papa bëgg ko ñu bëggante yonent bi jabaram ñaata at loo ko magee woon dama lay laaj gën di mbindeef te moom moo ñu sax voilà mu bëgg ko ñu bëggante Ndeye bëgg papa papa bëgg waaw jeex na wala problème. waaw lan moo tax ñuy rejeté naan euh, défaite yi nga xam ne moom lay am c'est grâce am Ndeye moo tax muy am défaite yooyu. fii fii am na fi ay mbër yi teg la ay défaite. Mhm. te kenn waxu leen dara. Mhm. dama lay laaj mais Ndeye Gueye ci showbiz bi la nekk moo tax. Mhm. mais fii ñun ñu kenn du leen déglu boo leen dee déglu doo dem. Mm-hmm. Mm-hmm. kon yow gis nga ni daal foot bi du ci ndey gay di ci paa boo jëlee yàlla la yàlla la mm-hmm. waaw euh, tey jii euh, Ndickou est-ce que ñu ngi koy xaar ci sow sax au passage xaw ma ñibbi sana xaw ma keroog ñoo ngi déggante téléphone moo ngi Italie moom day gën euh, mais instant bi ñu ngi xaar Ndickou ci côté amoureux Ndickou instant bi elle actuellement lu ma fen ma kenn ma kenn nekkuma kenn nii nii baax na parce que xam moo tax dangay gis góor bu bëgg lu yomb ñëw daanu këpp sa kaw naan la je t'aime téye ma vie dama laa bëgg yow rek laay topp fekk ne day duul góor gi dañoo ñëw bëgg lu yomb ñëw waa daanu si sa kaw nii nii baax na am naa leneen lu ma tal mais est ce que ndikk yomb na nax est ce que xale góor yi man nañ ko nax kame parce que xam na affaire yi parce que moo tax duñ ma ñema parce man booy ñëw bay daanoo bala ngay baara mbay di tëb di wàcce ma xam fi ngay daanee leen mhm. Mhm. kon da leen a nànd daal waaw mm. man bëgguma am jëkkër sax kii jëkkëru ngaak daal laa bëgg am. <laughs> lan ngay wax jëkkëru ngaak nan nga tuddee jëkkëru ngaak. <laughs> jëkkëru bureaucrate yooyu nga xam ne damay dal di wax nànk di dox nànk. di solu chemise ak lii. waaw yooyu nga bëgg. waaw jëkkëru français. jëkkëru français. <laughs> Malick nee na jëkkëru français la bëgg xam naa dama koy mujjee paas am maar rek ndax moom day def lacoste di ko tëj ba ci kaw ah yooyu ngay bëgg yooyu laa bëgg ah. ndax ma wàññi di alir du ma wax di ràngati di xàppate di wàcc kër gi nank laay wax dox naa <laughs> tey ban conseil ngay bàyyi ak jeunes yi ban yan conseil nga leen di wax ak milieu showbiz bi leen di wax yow waaw ñu gën a góorlu rek ñu gën a gën a góorlu ah mooy loolu yaa ma gën a xam town bi mooy loolu xam rek dafa toj ñu gën a góor góorlu lu ndaw mun na la yàq barki yàlla lu ndaw mun na la ñu gën a moytu xale yi léegi capable nañ coupable criminel ñeme am fit xale yi nouvelle génération bi boo waxee léegi ñu ne la yaay bañ yaa ko tere neex da nga ragal lool danga nga tàppit léegi ñoom ñooy agressé góor ñoom ñooy góor ñi ne da nga ragal lool da nga tàppit loolu yaa ko teree neex day daw rek amut arrêt loolu boo ko waxee sa moroomu baay mu àndoon doog jaww foo leen amee arrêt waaw lan nga wax ci candidature Mame Goor Diazaka bi nag xanaa yaa ngi koy voté. man voté ma Mame Goor de. léegi loo wax ci candidature ah yàlla na ko yàlla jàppale comme affaire bi moom rëkkante la. yàlla na ko yàlla jàppale. ëppale ah, ko yàlla jàppale Sénégal moom léegi daa jaxasoo. man nee naa naa ut nationalité dem toog Gambie <laughs> Sénégal baa ngi noonu rek. kon donc merci beaucoup Ndiku borom troisième bi nga xam ne tey moo jël concours bi euh, ban tamit nga ñuy tëjalee ci concours bi rek parce que initiative bu rafet la quand waaw émission bi mooy loolu neex na mooy loolu. Mhm. yow tamit maa ngi lay sant di la gërëm. gisoo jeudi suba lañ war a tasewaat bokkaat même plateau. 2S mhm. mhm. spécial Tamxarit. man Mami Cobra Mame Ndiaye Savon Tiken Adji Mass Pendo. lañ war a tasewaat suba. mais Mame Ndiaye mi ngi live di la xas rek. naan ndikku naan di dafa dindi persi gi nit ndikku daal ndekete hygiène la ñu rawee kooku déggoo ma kooku nee naa la sama mag la kooku dañuy déggante téléphone ak lépp uh-huh. parce yàlla mu nekk ñàkk ñaan chaque jour mu ne ma ndikku sama numéro ngi nii loo soxla boo ma waxut baalu la ko barki yàlla chaque jour loolu la may wax uh-huh. chaque jour loolu la may wax barki borom daaru uh-huh. man Cobra tamit dama ñëwal ba kees matériel la barki borom daaru mm-hmm. donc merci beaucoup Ndickou ci univers info bi mu la dalal waaw merci man tamit maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu buuse sama papa moo ma booleeg Lat Diop Lat Diop teral ma may ma xaalis bu bëri Lat Diop maa ngi koy sant di ko gërëm di nuyu waa Géejawaay yëpp di nuyu sama mag bu jigéen bi nekk Italie Ndeye Fatou jëkkëram Moussa Diouf di nuyu mama Sila ay xaritam di nuyu sama tante yi kër gi sama nijaay rek sama rakk yaay ñëpp di nuyu Pape di nuyu Oumou façon bàyyi loolu nekk en face Sonatel bu Guédiawaye ex tribunal bi kooku bopp yu baax yi meilleur moom la nee naa la defar xale koy def di nuyu Ndeye Niang borom alba mhm. waaw di nuyu Pape Seba Seba yëpp moom la koy jox. tey ban challenge la ñuy defal gars yi toppaat ko ci biir univers. <laughs> <laughs> wax ñu lu neex rek. baax waaye tey challenge bu ma baax ma rek ma toog. Euh. Euh, donc merci beaucoup euh, donc merci beaucoup euh, ci ki nga xam ni lañ dalaloon muy ndikku mu nekk waxtaan bu am solo donc ñu ngi leen di jaajëfal ak beneen numéro incha allah d'ici là portez-vous très bien daw leen gaaw ngeen abonné ci Univers Info TV